am na fii si Iba Mar Diop diggante euh, Fils de Balla bàyyeekoo Géejawaay mu war a jàkkaarloog général Malika euh, bàyyeekoo Malika ñaari xale yi nga xamante ni ay espoiru làmb nañu ñaari xale yu làmb doon bàyyi xel euh, tey ñoom ñaar jàkkaarloo nañu diggante Fils de Balla ak général Malika arbitre bi sifflé na ñaari mbër yi dañoo tolloo général. Fils de cokkas gauche ah ma ngi ñuyu bu lambe ak fii jàpp ngeen si da si yokk waaye wàññu leen si waaye di nuyu wala ñaari yaar borom Afrique du Sud ah, tey ñoo ngi fi Iba Mar neex combat bu amateur doo xaar Fils de Balla général jël na Fils de Balla na général ngi door gauche général Fils de Balla ko Fils de Balla na ko luy am luy am Fils de Balla général Euh, fils a ngi door euh, fils ngi door général général am na trois appuis luy am fils de Balla général luy am luy am ngi door fils wër na ko wër ngi door door fils ngi door door dóor Fils de Balla Gaye dóor général laa ilaaha illallaah stade bi ñëpp ci ñu taxaw cey bii combat combat bu gaaw laa ilaaha illallaah Fils de Balla lan mooy am Fils wur na ko nomba di dóor di rokas ndox yaa ngi dem gaa yaa ngi ndox général bu génnee fii Fils de Balla di nga am problème général bu rëccee fii di nga am problème diggante Fils de Balla Malika Fils de Balla wër na ko mi ngi waxante ak amateur di waxante ak di yëngal bopp bi moom Fils de Balla lu am tëj na hay lay la lan moo am lu am lu am ba léegi général Fils de Balla moo ko wër nomb général bi daan na ko laa ilaaha illallaah Fils de Balla Général Malika jël bu rëy jël bu amul benn werante fii si ba maax ñu ngi lay delloo ziar yaa sant yàlla bu baax macha allah ba tey combat Général Malika ak ki nga xamante ni mooy Fils de Balla noo ko gisee tey ah ni ko gisee moom mooy euh, outsider bi daan na favori bi te loolu mooy làmb outsider pour mu nekk favori suba foog mu fekk favori bi daan ku nekk xam na général Malika mais ñëpp xamuñu euh, petit fils de Balla defagul carrière bu ñu ràññee ci làmb ji mais ñëw na daan koo xamante ne ñëpp dañ nekkee ko lool loolu mooy neexaayu combat bi su ko foofu général Malika daan du bett kenn waaye tey jii daf ne kay na tey na surprise c'est important ci làmb mais man lu ma gën jaaxal mooy maanaam xeex bi nga xamante ni si fils de Balla lañu ci gënoon nemmeeku tey général moo ko indi voilà xam nga fils de Balla ñëw na attention fils de Balla xam na ne général su xeexee général da koy sow c' est que genre Sokes ay sens am day moo njëkk a commencé ubbi bunt bi ba mu ubbee bunt bi laa ne moo mbay kii songo la jëm laata muy song jàppante am moom moo dem xaru jàppante ji ku ne yóoru si gàncax borom ñu wëndeelu général nag def erreur roc ci loxoom di dóor fi ñu war a bëree soo fa dóoree da ngay bunt moo waral ñu wër ko ndomba. ci biir jàppante bi nan la de Balla def tey ba wóor général ndomba ak ban erreur la euh, ki nga xamante mooy. général moom ko ndomba foog nga ko mu romb la nga na ma ndax tellement que c'était rapide mais en tout cas jargandalu am na ba mu war ko ndomb ko wonee ndomb aussi général Malika dafa doon def à tout prix rëcc waroon accepté dem 3 appuis ci suuf 3 appuis ci suuf mbër boo nekkee ci suuf nooy jógee dañoo yàgg ci ndigal mais dañu yàgg ci ndigal yi dafa am na bon benn mois mu waroon rëcc waaye nag ba tey nag bu mu waree rëcc tam ba rëccee ba jàkkaarloo nga moom ci la ko rof ci xabal def terminaison donc ki nga xamante ne mooy fils de balle quand même man yàlla deux combats la séance ci moom muy Tafa nii mais li ñu fii daal mooy ku ko toppatoo mën naa bokk ci gaa ñi. moom bi fan <coughs> mën na bëreeg euh, gaa yi fi nekk. gaa yéen comme gaa yi général Malika wala bëreel rek adversaire am lañu. comme que daan général Malika képp ku général Malika waroon bëreel adversaire am nga day daan yokk. àdduna ba léegi dama gis école ba am ay tànk jëloon fekk kanam. non man ñi ma yor damay liggéey. man xale laa ni ñoom. damay takk samay dàll damay simmeeku di ànd ak ñoom si liggéey bi. man du ma entraîneur boo xam day toog rek di yor cible noonu man damay liggéey li ma leen di dawloo loolu laa leen li may daw loolu laa leen di dawloo li may physique loolu laa leen di physique loolu. mu nga Europe mu ngi liggéey su ñëwee ñu def dernier réglage. mais dafa mel ni père Balla Gaye Ndour lam yi def ko. parce que nee na yow yaa ko ci xale yi. li nga war a def yëpp def ko lan mooy ndaw la ndaw la aw ma dara mais Baye Balla maa ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jóge mais da koo xam ne ni xam na ne man lépp lu may def fulla ak fayda laa ciy ñoom xam nañ équipe bi maa fa gën a ndaw mais lu ma wax loolu lañu wax lu ma ne déet déet Bombardier Balla Gaye mais su ko mbañ amul lañ sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla sant yàlla sant yàlla bu baax aw jibul ñëw far Bombardier tëb bu mu tëb jëm si kaw adversaire ma si yoon. mais déedéet waa ji def ko dóor tànk dellu si xañ ko boppam dóoraat ko tànk tooñ ko lépp bu ko nee tag mi ngi koy xool pour mu jog deuxième tànk bi dal rek mu jóg ñëw ñu day fayu par force loolu indi affaire bi loolu indi lépp ça papa maa ngi lay ziar maa ngi leen di delloo ziar bi di leen nangul seen bas tey ñaan ngeen nangul ma sama bas. yal na yàlla nangu lépp. allahumma amiin amiin yaa rabbal aalamiin. papa dañuy bëgg a njëkkee MMA comme que moom moo xew ma yàgg ci ALG. waaw euh, doom demoon na représenté ñu fee nga xamante ni mooy Pologne. waaye ku nekk gis na combat bi nu mu demee ana tey loo ma mën a wax si combat bi. non Bombardier fito moo koy rey Bombardier fito keese la góor la. boroom jom piir la jàmbaar piir la góor ku ko dóor maron góoram bu ko dóoree war na mën a fay mais da ngay nekk ba am yoonu fayu fayu mais tooñ la pour nga jóg nga jóg et il faut ñu xoolaat préparation yi sept mois waa jiy préparé wu yow nga dem ba ngeen war compétir veille bi nga feebar ñu indi ñu faj la indi même pas trois mois nga delluwaat dans un mois pour préparer wu daje ak moom le le gars est plus sauf que toi waaw. kon mu mel ne préparation bu si waroon amul. non non non non non du ma amul parce que xaw ma état de kii mais bu bombardier bi mu taxawee nii da ngay xool bombardier mel ne nekkul mais tubaab bi dañuy xon ni ñun yéen da ngeen foog ñu xon ñun rek la. dañuy mystique de. <laughs> mais yaa fa ay Saint-Étienne ay lu nekk fii fii la ñu ngemboo jël jël coupe de France jël coupe d'Europe et tant d'autres ba jël coupe coupe du monde la France mais ñun lu ñu mais suñuy maam ñoo miineel ñooñu lii da ngeen foog ne ñu ñoo rek ñoom ni nii nii looy def dañ koy def. mais père dañu gis nii bu arbitre bi sifflé bâche la ñuy nekk à l'école di ko pratiquer di ko jàng màggee ko benjamin minime cadet junior senior